lu ma ba sol ay jàpp nii. ah da ngaa sañse nag. pare ma def samay taw la ma ma ma kay maa ko def. may loo ko am. daan ñëwaat. waaw. wax naa ko waa ji dégg nga eh xaar ba fu fekk la fa xaar ba fu fekk la fa bàyyi ba fu fekk la fi kooka la daam waaye nit mi nekk waaye ceeb bi ci oto bu weex bi ñëw na waa nit yi mi ne saa gis ma alal laa gis ajaatu mi sa yaay yaay alaaji Fall mu ndaw Fall aw bu sobi ci jaxri mi jàmm na bëri kunta yaay meer billahi bakkar yaayu kaana mu yee wala waaw waaw Lightning Thank you. Bye, big man. Sidi Diop ma dem ma dem soirée Sidi Diop billahi wallahi tallahi lem ma fa may nit mayu ma ko gis nga kii barki démb dama ko fekk ngénte Aziz nii jabaru Aziz bi dugg si bi mu séenee gis ma ma gaara dafa ne ma garbala déglu li may wax dan ne ma Ousseyn Mbaye ma ne naam dana ma yaay dugal femme bi gis nga aar bi yàggul gis nga ñii ni ñu bokkeel day bokk bàyyi àdduna yëpp respecté leen àdduna yëpp bëgg leen ci liggéey ci jom ci fulla ci fayda ci personnalité man Ndiaye li leen àdduna yëpp bëggee bëggeewuñ leen dara lu dul jom boo leen jom kenn du leen tiim dama ne kuy bëggee ñëw man Ndiaye yéen bëgg ñëw li ma war a wax ñëpp sama rakk yi wax nañ ko. dëgg la mais leen rek laa am pour wax. gisa boo fekkee démb war ngaa jomb wax loo xamul. ndax ñaar ñi toog samay jigéen lañ. samay jigéenu bopp lañ. dëgg wu la bokk naa jëmm ju njëkk a taxaw place Maam Ndiaye Samb Faye Saba di ko tudd. kon tey jii bu yàlla defee ba lii am. Mhm. dañuy ñaan seen un an de mariage yi ngeen dem ba muy muur amiin ngeen dem ba yéen ñaar suñu borom bi suturaal leen. amiin ba léegi tamit madame tamit maam Ndiaye nekk madame. ndax fii loo mën a wax ñu may la ay junni rek boo ko expliqué war nañ laa war a mën a jox ay junni yu bëri. barki démb bi xew bi amee. mayu ma damaa romb place bi taxaw. dafa sama may laa jël si. moom mi. dama koy woo téléphone lu jafe man ko dama mu dugalal ma ko ba benn duñu kon nag seen ànd bi yàlla suñu borom bi sàmm ah suñu borom bi taxawal sàmm leen aar leen yiir leen jarul expliquer parce que boo duggee rythme li fi gaa teg ci rythme moom mënoo koo wekki déedéet mais da ngay expliquer loo xamante ni lii la yaa fekkee sax nag baa gis waaw xam nga da ngaa loo solo boo fekkee démb te ñeme da ngay jomboo ko loo xamul tabaarikàlla maasàllaa Lat Joor bañ na ko loo bokk ak tubaab bi daa wekk ko loo bokk ne yàgg ba mu tax xam nga lu ma wax li ma wax démb ba ci démb rek ci vraiment bis ne dama ne maam Ndiaye Savon waaw tabarkàlla dama wax barki démb wax jom solo nan bàyyi lakkub daay bala muy naaw jëm fa la neexul day daal di na xale yi bàyyi lakkub daay bala muy naaw jëm fa la neexul day daal la lakk réew ki tax ngay tax te mosul taxaw ne yaa tax may tax boo góoree rek ne ko yaa may tax fuyoo bewoo réewoo ba nga moo mis doo ku la sa yaay ba say sa baay tabarkàlla mbokkum yaayu Kumba Jaak sa deex yaayu Sëriñ Fallu yaayu abi yaayu Faatu yaayu Pou waaye yaayu Sall Mbaye Guèye mii di la wax lu baax. waaw waaw insister. dara takk ndayaa ba te nga wax solo. nga ne géwél lum foor foor du ma sa géwél a ma sa judd waaye da nga ne géwél lum foor foor géwél taxaw géwél buur taxaw géwél baa doole taxaw nga ne géwél lum foor foor daan mbayee sama géwél oh. loolu bu ma doyal man dara doyatuma te man nag barkàlla du ma cal wala du ma xaali xaña du ma dëmm ànduma kenn bëccëg bu guddee ma du ma génn niinu ma taxuma soo taxuma caagi rek soo gor dong la góor kese laa ma ñëw sa place a fa maman Birgère mi muy jóge Kër Massar ngay jóge yëmbal di liggéey ñuy daan si doole nga nuy fay salaire mu néew ak mu bari nga nu ko daan fay mosoo maa yor ñaar turam man man daal mbay dama di ka nga ne dama du delloo fukk ak juróom loolu doo koy sama problème du ma delloo fukk ak juróom man ku ma gàcce ma gàcce la loolu la ma yàlla bindee daf ma daan wax daal ma ne ko ah mu ne ma foo loo yàqule rek sa làmmiñ sa moo la ko yàqal moom mii moom ma ko la yaayu Serigne Fallou ñu lay wax xamuñu la maa la fekkoon sa place bu ndaw ba tubaarkàlla keroog ma nga koy indi gile nga ne ma daal ma ne laa nga ne ma yaa ma doy ci togg yi yaa ma doy ma toggul la yàqale la keroog ma nga def sa année ba man toggoon ba mu ñu bari doole. dëgg la sama diggante ak yow nañu nañu ci nit ñi génn rek ñu ànd. dëgg la ndax waaye man mii noonu laa la bëgg. ànd bi dëgg la. ndax xam nga tax noonu laa la bëgg. ànd bu yàgg. tubaarkaal dama ànd ak yow jigéen diw woo ma. ndax nga teg ma sawet di ma wax daal mbay kaay def lii kaay def laa la. tubaarkaal la macha allah wax ju ñaaw. o jam bàyyi mbaaree xaw ma. billaay mba ma de lii wax ma di ko xool. ini engkur Wih. Kami nyalmai mais maam xew bi yaakaar nga jàmm dina ci am ren tey jii tey jii xew bi jàmm dina ci am ren gis maam Ndiaye Savon ànd ak dal ñëw teral ñi nga xam ne ñoom la war a teral xew bi neex mu ambiance comme ni ko ñun ñëpp xamee.